laa jëm ah bu ma dawee fan laa jëm Abdou Nguer moom damaa bëgg ngeen wax ko ne ko mu dem toog kooku fen naa fen fen fen fen ba xamul li mu niroo te mënut a su ma xamul mu dem laaj ma 2021 ba mu duggee euh, bureau Mamadou Seck boobu la gënoon na mbir dañ ma convoqué sama convocation manque jëloo manque jëlee section de recet laa ko jëlee te booba la gëwoon a métti dama xuus dem jëli ji ko awma lenn lu ma ci ragal ak lu may tiit kon du ma toog ba mille 2023 ba seeni fen leer may daw kanaa man du ma gor kanaa man du ma gor man su ma waroon daw sax ma suuraale patriote yi nga xam ne dañ maa jàpp teg ma fu sori lu ma soxla balaa jant beesoo ñu defal ma ko ñaareel ba ñu may di ma encouragé heure bu ma jooyee ñu ngi sama ginnaaw fan laa daw jëm yéen su ma dawee ngeen kontaan man su ma dawee man Ndeye Khady Ndiaye yéen doomu xaraam yi ngeen kontaan parce que loolu ngeen bëgg bu ngeen sañoon seen seen projet duma ma ko fekkee mais su kàttanu yàlla suñu borom bi maay taxaw face à face ak yéen duma ma si alléyar du ma si daltu gannaaw te bu soobee yàlla da ngeen ko regretté sama waxu démb nag mooy sama waxu tey dawuma alléyaru ma yox yoxiwu ma te gis nga projet bi bu ngeen bu fekkee am ngeen fit ngeen def ko suba suba te man gisuma benn plainte man Ndeye Khady Ndiaye sama avocat démb maa ngi wax ak moom téléphone gisuma benn plainte kenn indilu ma plainte envoyé naa maître Balde message na ko dañ la jox foofu plainte mu ne ma Ndeye Khady gisuma benn plainte ma toog di xaar génnuma sama kër maa ngi kër ma saar démb sama boutique xëy naa fa fa nekk ba vingt 22h ma doog a jóge ko sama boutique kon am na yenn yoo xam ne jaru ko. boo bëggee loo wax ci télé te amoo ko nga dem seet ngeen information nga wax ko te bàyyi fen fen baaxul man nag loolu laa bëggoon a leeral parce que damaa xëy sama mbokk yëpp di ma woo ndey di foo nekk ndey xa di foo nekk man duma daw man duma arrière man duma bouger parce que dafa am yoo xam ne fitnaal doomu aadama la dafa am yoo xam ne fitnaal doomu aadama la yow boo bëggee information wala nga bëgg dem toog si télé am loo wax te waxoo ko man nga wax leneen mais toog naa diw dañ koy yóbbul convocation mi ngi ne messi àdduna bi kenn gis ko man fan laa jëm man sama sama sama génn génn Kaolack suñu dëkk su ma si paree pare naa ci démb dama xëy sama boutique ba jant bi so deux heures laa wàcc. fu mu gënoon a méttee fu mu gënoon a méttee man Ndeye Khady Ndiaye fu mu gënoon a méttee 2021 booba gisuma kenn ku yàlla suñu borom bi laa àndal bougé wu ma un mètre ma toog ba 2023 ba seeni fen leer may daw fan laa jëm di yàq sama dew naan Ndeye di daw na fan laa jëm man Ousmane sonk mi ngay fenal moom talul la mais man dama laa tal man heure boo ma waxee ma tontu la parce que talul la talu sax sa baay mun la yoon ñu nekk sa ginnaaw sax talul la ak Ousmane ak keneen man nag heure boo waxee man Ndeye Khady dama lay tontu. sa fen nag ëpp na fen ngaa fen fen fen fen ba na yow dangaa liggéenti 10 millions jox ko keneen te yow amoo sax loo jëndee caleçon ku amul loo jëndee caleçon fëgg la 10 millions doo wax 10 millions yi ku la ko jox seen fen dafa ëpp seen fen yi si boppam dafa ëpp génnee li ma si nag ba mu set man projet rek laay xaar suba ba ngoon heure bu may yeewoo damay yeewu di xaar projet ba jant bi so sama waxu démb mooy sama wax tey dem leen sama fu démb ya ngeen dagg ko ngeen boolekaat sama live tey alliéeru ma benn yoon te li may wax ragaluma ci benn yoon te jour bi ñu demee projet barke salaatul faate ngeen xam ne fen du bejjaaw te ngeen xam ne yàlla rek kay buur gëmu leen yàlla nag gëmu leen yonent bi xamu leen lan mooy yàlla suñu borom man nag gëm naa yàlla gëm naa yonent bi xam naa lan mooy yàlla suñu borom bokkaaliwu ma kenn ak yàlla suñu borom yàlla laa àndal yàlla laa gëm yàlla laa yaakaar yàlla laa dénk sama bopp yàlla laa dénk sama njaboot kenn mu sa dégg ñu ne Ndeye Khady toog na di wax ba tudd keneen yàlla rek gis nga yàlla boobu nag moo may protéger fii si àdduna protéger ma feneen nag fu ngeen ma bëgg a yóbbu gis nga bis bu projet amee bis bu projet amee yàlla si boppam mooy ni wan boppam ngeen xam ne fen bi ba jaaw te projet boobu ñun moom la ñu xaar di dul seeni dul di teg rek ne si dëkk bi di manipuler nit ñi lu ma gën a métti rek côté Saalum nga xam ne ñoom xamuñ lu xew lu wax ñu dëgg la yeewu leen yeewu leen ngeen nekk nit xam ne dëkk bi wax dëgg amatu fi ay manipulation moo fi nekk man faalewuma leen gis nga yow Abdou Nguer bu nga xam ne sagaru nit nga yow amoo sax loo jëndee caleçon boo sol ay fen si ngay lekk ay fen si ngay naan ay fen moo lay dundal man nag man Ndeye Khady njaay bii su ma xëyee lu ma sonn sonn naa dem sama place li jënd sama bopp maak sama njaboot soxlu ma alalu jàmbur soxluwuma alalu jàmbur lu ma lu may lu may liggéey ñàkk jarañu moom laay liggéey su ma nekkoon su ma nekkoon yow tey milliardaire laa bu fekkoon dama nekk fenkat comme yow mi yow mënatoo maa teg bët milliardaire laay doon mais du ma fenkat comme yow dama gëm yàlla suñu borom dama yaakaar ne bu ëllëgee su ma deewee sama loxo ndeyjoor laay njegenaayoo te boobaa kenn du ma fa fekk kur sama jëf gis nga su deewee sama loxo ndeyjoor laay njegenaayoo te boobaa kenn du ma fekk sama jëf lu ma liggéey rek la ma yàlla suñu borom bi di fay yéen ay doomu xaraam ngeen topp ngeen dëkk bi di manipuler topp Sénégalais yi di manipuler topp nit ñi di manipuler man na kenn mënu maa manipuler parce que man yàlla suñu borom bi laa ànd ak ab yónentam ak sama njaboot. doomu haraam yi ngeen doon sama laay ba nag fii lay yem gis nga boo génnaatee midi balaa une ma tontu la man maa ngi sama kër sama numéro téléphone ku ko bëgg am convoqué ma danga ma convoqué man nëbbatuwuma te damay dox si mbedd yi démb rek si guddi damaa dem Auchan bu Kër Massar jënd fa samay mayonnaise ak samay ketchup ñëw dugg sama kër tonk kuy daw doo doo dugg Auchan sama numéro téléphone 77 la 085 07 11 bougé wu ma 1 mètre ku ma bëgg a indil convocation fekk ma sama kër. wala nga woo ma sama avocat dem jëli ko da ngeen wàññi seen duuli man ngeen ne fan trop maa ngi jégalu sénégal yi merci beaucoup fi laa